xam ne mooy certificat médical ba yóbbul ko le le doyen des juges mais pourquoi le doyen des juges la lendemain woolu Adji saar ne ko yow est-ce que kii moom la est-ce que kii nii moom moo la gynéco bi la wala nangama nang wala posé ko ci question defu ko dafa jël tegee na la capitaine Touré ñëw indi PV yi enquête préliminaire yi mu jël lépp est-ce que le lendemain moom woo na Adji Sarr nan ko aji enquête préliminaire yi nee na lii nga wax déedéet lépp lu ñu indi moom ki nga xam ne mooy doyen des juges maa xam jàll musul woo aji Sarr ñu indi audio rek mu woo Adji Sarr ñu ne eh, dañ ñuy foowee ñu woo Adji Sarr mu war a expliquer te yeneen yëpp woowu ñu Adji Sarr Adji man non dama ko doon man la sax mais dama ko doon foowee dama ko doon gololoo ñu lay enregistré dama ko doon gololoo loolu yëpp dama doon gololoo dama doon foo oh, oh, dama doon grimace oh, mu ne ah ok ok am problème kañ tegee sénégalais sénégalais na ngeen def waa lu ngeen doon xaar la montagne a accouché d'une souris ah, ñu ne la la la la maa xam ne noonu leen doon fooyee si ñes <laughs> aji na <laughs> eh waay merci merci Omar jërëjëf waay yow ñii la yow grimace golo nañ leen golo loo <laughs> kon li wax jooju audio yi foo la waa dañ doon foo dama doon foo dama ko doon piégé Sénégal bu kenn wax nañ ñëpp ne tekk nee dañuy piégé nee na dañuy foo nee dañuy foowee nee dañuy gololoo bu kenn wax ñoom nañ leen bàyyi ñu def seen film xam la moo neex ñu yóbbu la ngay seetaan cinéma toog def tek tekk golo gi di tëb di dal doo reetaan gis nga bu golo gi bu yàggee day toog taxaw eh, waaw waaye yow grimace yi ma fi des yëpp kii reew bu yàggee day nekk nit déggu leen de ñu yóbbu la parc golo yi nekk fa rin naaw ak grimace lekk banaana ak nga def nii sol say lunette ni ba golo gi day demandé kii baax may seetaan wala seetaanu parce que li muy grimace yëpp yënguwul def nii rek golo gi tëb kucci kucci nga def nii rek golo gi xëcc banaana ba lekk këf daw wàcc fële ñu périer nga def nii rek golo gi daw daw daw doxot nga def nii rek golo gi puup kii puup kii kii naw naay naw ñuy foow di cëppi cëppi nga def nii rek bu yàggee golo gi dana eh pardon xam eh, golo aji saar ne eh maa xam golo maa xam nga maa xam ne ah waaye ñii ñun dañuy seetaan wala wala est ce que deewuñu ñu ah, ñun li ñuy golo yëpp ñoom yënguwuñ de réewuñu xaqataayuñu hmm, ñàngal lañ de maa xam ne u um, xaala ñu xoolaat kaa ñu dóoraat ñaari grimace ñu dóor grimace sénégalais ni nit ñi ni mën a yii golo aji <laughs> man golo maa xam ma xam lu ma lay xamal nañu jóg nañu jóg nañu leen may yii lu ñuy nar nii ñii boo boo defu nag ñu supp de ñii ma gis nii ñii faaw ñu ñii reetaanuñ de wallaahi aji lu ñuy kolokolu yëpp xoolal seet reetaanuñu tàccuwuñu yuuxuwuñu ñii gis nga ñii ñii ay criminel lañ booy deful nak dinañu supp ñëw naa ba seen kanam ne nii yënguwuñu xaw ma dañoo dee xaw ma dañuy nelaw xaw ma mais ñii daal aji buñ golo aji buñ jógul ñii danañ ñu rey de billaahi ñii si supp ñu la ñuy def lekk ñu ñii dañoo xiif de xoolee boobaa nii la ñuy def ne war a daw film ba jeex parce que film lañ nekk ni fi ne film golo film bi jeex sama benn copain daf ma doon expliquer benn copain bu fi ñëw benn nijaayam bu fi ñëwoon fii Canada mu yóbbu ko si benn cinéma 3D euh, kii cinéma yi ñu solol ko euh, kii mooy kii yooyu noonu mu ànd ak sama benn copain la laasana ñu toog ni nijaay ji commencé di seetaan di seetaan ba gaynde gi ñëw mel ni ku koy lekk rek waa ji di sànni tànk yi daan ni mel ni kuy xeex a gaynde gi di yuuxu tubaab yëpp a ngi ne tekk moom mi ngi jóge Sénégal ñëw vacances yi fii daaw fii daaw Canada yóbbu ko cinéma gaynde gi mel ni lu koy lekk mu yu waa waa di sànni tànk yi mel ni koy xeex ak gaynde gi nit ak verre gaynde gi arrière tuuti na mu mu kii taxaw gaynde bi ne tekk ñu fay lamp yi mu ne nii xool xool ki ko indiwoon kooku ne tek mooy lunette 3D mu xool ne nii ba ci kanam sama sama cousin bi nee na genre casque nee na maa ngi maa ngi koy bàyyi xel de mu xool xool xool yëpp ne tekk mu ne nii dugalaat li nag 3D yooyu ne nii dugalaat toogaat ba ci kanam rek affaire bi ko waa waa waa nit ñi nee na wokk sama cousin sama copain bi nee na mu wokk ko ne ko na ñibbi waaye na ñibbi so waay nee na mu dindi affaire ne ko ah mu ne ko nit ñibbi mu ne ko non non non mi ngi kii mu ne ko non non non man pare naa nit ñibbi nit ñibbi <laughs> sama sama xarit bi nee na may xaaxaataay ci biir xel la ah. maa ngi xaaxaataay mu naan ko nit non nit ñi non man baax na man baax na non nit toog ne ko non non man baax na man maa ngi génn jiitu la ci bunt bi nee na nijaay yi tekk la def génn ci bunt ba di ko fa xaaral muy ree nee na foofu dafa bu ne <laughs> mu ne mag oncle bi bu mu ñibbee def na ko dootuma fa tegati tànk dootuma fa ñëwati booy dootuma fa tegati tànk booy booy <laughs> ba léegi donc comme noonu la demee ñun noonu la ñuy def xam nga kooku bu mu génnee leen ne 3D mi ngi taxaw xool ñëpp ne tekk malgré que moom mi ngi seetaan film ba doon film bay filmaale mi ngi seetaan film bay filmaale ñun dañuy toog def tekk comme Adji Sarr ak Maham ak Macky Sall ak seen ñañ dañuy film mais ñun nañ am ful la toog def nii buñ defee seen film 3D kucu kucu kucu saa yu ubbee fekk ñu def teg bu ñu xoolee ah mais ñii foofu ñu de <laughs> ñii lu ñu naral ñii ñii ak ñoo bon ak ñoo sadik noonu lañu war a def ak ñoom bu ñu daw bu ñu gàddaay bu ñu def dara nañ def tekk tekk di leen déglu ñu bàyyi leen ñoom ñu def seen film 3D bàyyi leen ñu def seen cirque ñu bàyyi leen ñu def seen cinéma parce que maa xam moom moom dafa jàpp ni ay golo la ko yel lool ay golo la seqal loolu la ñu jàppee Adji Sarr tamit moom ñoom maa xam di ko gën a dolli ne jàppee leen ñuy golo ñun dañu def bu buñ ci boole coow maa xam continuel <laughs> bu la kenn téye bu la neexee suba nga woowaat Ousmane Sonko fu ne nii dafa bëgg a calmer tout après day woowaat Ousmane Sonko woolu Ousmane Sonko après nga woowaat Adji ñun ñu ngi lay déglu ñun maam duñ la wax daara daara eh bàyyi leen Ousmane Sonko mu wuyu ndànk bu ko woowaatee non nañ ne Ousmane wuyu ko <laughs> Ousmane ñëw kii Ousmane génn la dama toog yaat ñun Sénégal loolu rek loolu kese lañ leen laaj calme bi open eyes look tey ceene xuli tana pat xam ba open eyes lug tey ceene xulite na pat xam ba ca le silence tue un silence assourdissant un silence bavard tubaab bi naan le silence assourdissant le silence bavard un silence puissant tueur assassin nañ def teg bu ko bu ko maaxam maa xam golo di girimaasu waaw damay woo Ousmane ñu ne Ousou ku sell ki wuyu ko Ousou génn ah Ousou génn nga ñibbil ah Ousmane waa yow ñii lan la ñuy waajal ah man sama gars yi moom kii nañ de ah aji am na beneen audio buñ ma jox aji ñëwaatal aji dugg moom bu dee aji la buñ wax dara ne dugu aji dugg génnaat aji génn nga <laughs> ñibbil amul problème dafa am lu ñuy xaar rek bés bu jotee wallaahi baayu maaxam du ñu téye maamaati maaxam du ñu téye Amadou Diouf du ñu téye billaahi wallaahi di nga gis révolution révolte indignation bu musul am ci kaw suuf te maa waatal daraja Seydina Mohamed Sénégal dinañ ko def billaahi wallaahi ñu ngi ne tekk tekk bu kenn wax bu leen coow bu leen xëccoo ñun dañuy jëf bu ñii di wax ñii dañuy jëf nañu jëf jëf moo mun wax na ñëpp ne tek tekk tekk tekkaaral di leen seetaan li ci des bëreetul de dañuy achever rek achever mu jeex tàkk ñu raxas ba mu set raxas Sénégal ba mu set placé ñu ñu war a placé gars yi doxal affaire bi jub kocc bu boobaa ku ñëw da ngay respecté ba naan peuple bii dof lañ de peuple boo xam lañ gaaw ñu jóg mais buñ jógee kenn du leen téere kon koo fi tegati da lay respecté boo indee nit sa kër sant ko liggéey mu xëy sàcc sab tele nga def teg mu xëy sàcc sab rajo nga def teg mu sàcc sa yére nga def teg mu sàcc sa chaîne nga def teg mu sàcc sa xaalis nga def teg mu bëgg a sàcc nag lal ba bu mu ñëwee fekk la nga tëdd mu bëgg la yëkkati yóbbu lal ba nga jàpp ko dóor dóor dóor dóor dóor ba mu sedd guy nga diiri ko ba ci mbedd mi nga teg ko ci bunt bi dugaat ndànk te daal beneen sàcc bu ñëwee ba fekk ci buntu ni yëngal mu mu faatu mu yëngal yëngal gis ni kii lépp a toj bët yaa ngi ñetti bët la yor dañ koo dóor ba beneen bët ñëwee nii dóor ko ba bopp bi xar dóor ko ba loxo yi da nga ñu ñu ñaari loxo yi ñaari tànk yi sàcc est-ce que boo ubbiwoon buntu bi yàmbalang sàcc du dugg déggu leen de sàcc boobu doon la liggéeyal ñëw sàcc boobu bëgg la yëkkati ci lal ba ngoo dóor ba këppati ko teg ko ci buntu kër ga beneen sàcc bu ñëwee du ko mus a jéggi day xool ni buntu ba ubbeeku na waaye kii nuñ ko diree ba indi ko fii sama mbokkum sàcc bi nii lañ ko def ah ilaha illallah wóoreet lay def mun nga bàyyi noonu sa buntu kër deux ans benn sàcc du fa jage même buñ diree ko ko yóbbu suuli ku ñëw ne yii buntu bi moo mooy te lañ ko nu mu ubbeekoo nii danger la buntu bi gis ngeen yàmbalan gi mu def nii da fa la ba ne nag danger ba ca biir la dugg dee dugg dee dugg dee sàcc yëpp dañuy xam ne lépp la ñuy laal suuf boobu dañuy xam ne kii nekk fii bunt bi da ko indi piège la boo ubbi nu ko ubbi nii lépp boo fay dugg dee ku dugg dee nga am sa jàmm tëdd nu la neexee ubbi say bunt bu la neexee sax nga naan kaay leen sàcc kaay leen sàcc sàcc yi di naan mukk bu leen laal bu leen jege kaay leen sàcc ñooy bu leen laal bu leen jege day reye de day reye de bu leen laal bu leen jege day reye de noonu la foog ñu jàpp ñoom Macky Sall dóor ba ñu sedd sëf leen ay dammitu brique ba ba mat ay jal jal jal jal jal ba ñu réer ci brique yi aji saar ak ñu mu ñu topp keneen koo fi teg danaan yë ñi ay raykatu nit lañ gis nga nuñ fi def Macky Sall la gis nga nuñ ko fi def ñoñam yi ay waay aji saar nuñ ko nuñ ko mujjee ñaaw na boobaa billaahi di nga xëcc nit pour mu pour mu toog nga def ko ministre mu bañ moo laa ñëw doon ministre mu ne <laughs> xalaatu boo Mollah gars yi doon sëñ mukk mukk mukk mukk booy gars yi dañ dof de dañuy rey de ah waaw d'accord ah kilifa waaye bëggoon nañ ñëw nga doon ministre de l'élevage mu ne xalaatu boo ko non non bàyyi leen ma gérer sama njaboot noo man man sama njaboot moom daal moo ma gënal daal waaw ma xam rek soxna si bëggul ma ma laal daraay pouvoir bi boobaa dañu am problème mu ministre am problème mu député am problème mu maire koo woo mu daw koo woo képp kuy client wala fenkat wala sàcc boo ko wooye day waxkat lay def daw parce que daanaka ñii ay raykatu nit lañ ñii dañ lay assassin ay assassin dañ lay assassiné ñii dañ lay sëf brique deewu ñaaw lañ lay def deewu kaña fu loolu loolu étape boobu dañ ciy jàll gars yi jàll ñu respecté ñu ba faw gars yi jaar ci respecté ñu ba faw taxaw temb pour la révolution taxaw temb le news national ou le noqante national incha allah c'est bientôt dans quelques mois le newsante national ou le noqante national ñaari ennemi rek le ñuusante national ou le noqante national bientôt bientôt dans les bacs incha allah bientôt très très très très très prochainement kon aji yow wutal say kii ki 44 wutal say 7 mètres percal ndax xam naa ne say mbokk buñ la sëfee birig ñetti fan wala ñeenti fan ndaraan yi dinañ wër birig yi damm ci birig yi di ko wër pour wër la ci biir boo deful naag balaa ñu la faa fekk fekk seey nga de góoma de dinañ la sëf birig yow aji sëf la dammiti birig ba deew kaña ba nga tasaaroo ñu birig yooyu nag bu ñu ko dajalee day doon ay jàll jal jàll jal jàll jàll jàll yoo xam ne cinquante ndaraan buñ ko buggee tasaaree day def ay une semaine fekk nëb nga dangaa foog ni lu ñu loolu yow continuer say fen rek yow jàpp jàppee ñu ay gol rek yow jàppee ñu ay xaj jàppee ñu ñu baaxut ñu judd fu baaxut ñun ñun dañoo judd ñu sànni ñu ci ci ci mbalit dafa la neex fenal fu la neex yow continuer say fen fen lañ la xamee continuer del fen rek continuer boo lekkee ceeb na maafe garaawut amul problème ñun ñun ñu ñàkk fayda lañ yow yow dañu day rek yow dañu day ci diggu bopp rek amul problème xam yaa ngi day ñuy fomp rek tey nga ñëw warax warax biir buy daw say ñi yëpp ah, say ki ñuy suba nga ñëw doon ñu day ñu ay donxal ay ñaar ñett donxal ñu ñu ñu dël fomp dem sangu ji ginnaaw suba nga ñëw doxal ñu praaj xoolal doxatu waxañ gars yi bu kenn wax muñ leen de muñ leen muñ leen muñ leen eh, ñàkkuñu fay de de dafa am lu ñuy xaar eh, fomp leen fomp leen doxati fomp leen wut leen cuuraay gars yi ngay sëq ñëw toogaat ba mu neex la dam lekk say say maafe wala say lu mu doon ñu rek puut day ñu ñun ñëpp ñu koy xat ñu fomp rek gars yi fomp leen te fomp leen fomp leen rek lu waa jooju defoon fa laa koy tëjee ak deux quelques affaires waa ji daa jàppoon séeréer ba daa jàppoon njaago ba di dóor di daw di door di daw di door di daw xëy mu ñëw di dóor rek njaago bi këf séeréer ba rek yanu di daw ak moom di daw gars yi topp ñu wooy dina ko rey wooy wooy dina ko rey gars yi yuuxu waa ji di moom rek ñu naan kii fan la jëm ak moom séeréer ba ba dafa mujjee jommi naan kar leen ko kar leen ko droite kar leen ko droite fay génnee kar leen ko non non non ay damay toj moom mi ngi ci kaw ga xawla xam kenn xamul ko njaago bi di yóbbu séeréer bi naan waaye sama gars yi sama gars yi kar leen ko gauche koñu droite lay a génnee de koñu droite wis sam waaye jàpp leen ko gauche gauche goos gauche ci kaw ci kaw la ci kaw ñi naan dana ko sànni ñi naan da koy suul ñi naan da koy tëmbal gars yi di daw ñëpp waa ji waa ji ñu yanu moo mujj naan kar leen droite tëj leen ko ñu droite tëj leen ko ñu droite bi balaa mu faa jàddee ko oh ya ya ya dem leen gauche dem leen gauche dem leen gauche waaye di daw ak moom. sànniwu ko de da ko teg rek waa ji ne warat boobu la ko gëj a gis koñ bay poo ci topp ñi mu naan ay daal lay gu kar leen ko kar leen ko fàtt leen bun bu fàtt leen foofu fàtt leen foofu këf leen ma fàtt leen wuy sama day dina ma yóbbu droite njaago bi di wërale séeréer yi ci koñ yi di gars yi topp ci wóob wóob wóob wóob daf na ko cupp ne nii hii séeréer ba ne warat mel ni ku seey <laughs> boobu la bàyyee mbéj njaago ba déggu leen ne boobu la bàyyee mbéj njaago ba kon gis nga Adji Sarr fu ne nii nañu day nañu doxat nañu biir buy daw nañu pàccaaral bu kenn wax bàyyi leen wax bu kenn wax ne leen teg di ko seetaan di ko déglu ne nañ nañu mbéj tay mu mbéj ñu suba mu puub ñu ginnaaw suba mu ñoppati ñu ginnaaw suba mu doxat ñu ginnaaw suba mu mu mbes e, pes ñu ginnaawaat suba mu xosi ñu da leen faju rek faju leen ndànk bu dee puub la ngeen fomp bu dee doxat la ngeen fat bu dee biir bi daw la ngeen fomp bu dee paraj ngeen fomp bu mbéjee ngeen ne ah garaawul mu ñoppati nga mu xosi ko oh moom na jàpp ne ay tàppet la ko seqal na jàpp ne Sénégal yëpp ay tàppet lañ ay ragal lañ ay buqat lañ ñun ñoo leen mën Macky laa àndal ñoo seen bàyyi ñooy seen ñun nañ def tekk tekk bu leen coow bu leen dem di werante bu leen ko sax wax lan la ñuy waajal daf leen ndànk bientôt bientôt très prochainement ñu won ko lu musul gis yow mal xiyaam la koy fajee comme daa ànd ak ab duulkat xool leen fii Macky Sall fenkat bu bona bona bona bon lii laa leen doon wax ñu ne may wax corona coronavirus corona corona lii defaloon naa leen ci de man leen xool leen waa ji ceebu jàmbur yi la dem port wàcce leen ma wàcce leen ma ceeb bi wàcce leen ma ceeb bi gars yi wàcce ceeb bi tak tak tak rangé sa waay di sa waay di maaj <laughs> ak ku munul duul sa waay di maaj nag <laughs> ceeb yi ma ne leen kan moo lekk ci ceeb yi ceeb yi kan moo lekk dafa dem fekk fa trois bateaux trois bateaux ceeb Macky Sall wàcce leen lépp rangé leen ma ko wàcce la gars yi nag ko waaye mais monsieur le président wàcce leen ma ko ko ayca ayca ayca riim riim riim gars yi riime ko bum bum bum bum bum Macky naan ma naax leen mi milliard dinaa ko noose ak sawa njaboot mi ngi ni fu ni xolo sa loxo yi gis ngeen loxo yi xool leen loxo yi ma ngay loxo yi di ko téye comme di maaj mille milliards rang <laughs> dëkk bi cinéma la dëkk yëpp président cinéma xool mi ngi maaj de kii kan la waa jaa ngay maaj xool ceeb bi moom moom maaj rek lañ ko si sax mu ñëw maaj jël ngeen ma RTS jël ngeen ma gaa ne waaw jël la pré yokkal yokkal mu naan ni <gasps> baax na baax na baax ah, baax na mu ne gars yi ne ko mi ngi naaj mi ngi naaj magi doon de boor ana ñeneen ñi kenn nekk moom kese mooy maaj ana ana ana eddukaan yi ana suqam ana cogg ana jàgg ana càgg ji kenn ñëwul moom kese magi di maaj RTS jël leen jël leen mu naan mille milliards lañ ko jox mu ne ko farax farax mais kaay boo bu leen buñ koy noosee da ngeen di faaj senegal yi noq leen leen ñu dugg ci kër yi parce que xaalis bi dafa bëri bëri boo xam ne sëriñ bi sax dóor nañ ko sëriñ bi dugal ne ko xalif généraux yi ay deux cent millions ñuy raxas gars yi ñii buñ leen buñ koy noosee ñu ko noosee ci kër xajul ci kër mille milliards la sama gars ci mbedd mi lañ koy seddooyee gañ sa moon jàpp gars yi policiers yor ay xiir ñoom yow looy fi fii taximaan bu gaare sax pour saw sax yow looy def fii taximaan non dama dem saw ay lu tax nga saw doo dem sawi sa policiers yi ñuy yor dañuy dañuy dóor bay dóor xaj ay xaj xaj xaj buy taxawaa ci mbedd fu fu yoo xaj la fi def mbaa doon nit xaj ayu aw aw ah non xaj la xaj la du <laughs> xam nga ni Sénégal ay dëmm lañ tam tam ñu tam ñuy tam ñuy soppaliku xaj bi mun na nekk nit boo gisee dañoo faaj bay faaj ay xaj parce que dañuy foog ne xaj ay nit yuy lañ ay dëmm <laughs> noq leen xaj ba fu fu xaj ñu ne noo xaj la non du nit du di dàq gars yi ci yi di dàq gars yi ci mbedd yi <laughs> ci génn sax jàpp nañ ci xoola koo xam ne vidéo mbedd la génnee muy 10 000 problème tëj ko ci kaso yi waaw 10 000 dafa génnoon démb jàpp gaa yi di dàqe jaaykatu caaf yi ñu yëkkati leen jaaykatu uul yi mbedd yi taximaan yi borom car rapide yi dàqe gaa yi di faat fuj fuj ka dafa leen mini mini mini la Macky di génn gaa yi ñoom ma cuucu fay dañu war a séddoo xaalis bi ay ca 1000 milliards la fuj fuj nokk Sénégal gaa daw daw toog ci école télé yi minuit mbedd mi ne selaw mag yi génn oh yo oh, comme maajam yi muy def nii rek oh oh oh ma oh. jotu fay ansa ansa ansa ansa rakk Marème mi ngaale woo ko mu ñëw e Marème kaay <laughs> ma ki mi ma jotu génn wool kaay wool kaay wool ma kaay ñu reer wool kaay ñu reer mille milliards yi ñu reer nang nang nag amul jiiroo mille milliards la ñun suur gars yi woo ministre de la santé ministre des affaires étrangères ministre des dus douches ministre des cabinets ministre des saw katulal yaa dajaloo commencé aca seet doo leen kas am na luy riir de lan la ah non non non dégguma biri gaa yëpp a ci biir kër yi toog di seetaan <laughs> suñu policiers yi faraj nañ leen ñoom ñëpp daw aca aca seddu aca aca aca ki naan jox ma mille milliards foofu eh, eh ma foofu cent milliards jox ma foofu foofu et eh, dompal ma fële comme ni ñu comme comme bu leen tegalee bool ni ngeen di yéen ni ngeen di nan daggal ma soble daggal ma kii boobu noonu eh, lu mu tëriti ñaam bi jox ma ci jottali ma carotte bi ñoom noonu lañ doon def xool eh, ma cent millions yi foofu aca ma gën a ndànk rek sama gars yi mille milliards la mille milliards la aca oh gis nga la ministre de la ah, jot jottali ma foofu cent cent cent baabu cent cent cent millions yi ay eh, sama gars yi téye leen ma sama poche yi na de moom mooy ñoom ñoom Mouhamadou Bamba Amar ñu nekk ci ginnaaw Moustapha Diop oh, waaye yow sama gars yi lu ma dugal bëri na eh Bamba waaw am téel ma li ay dànk yu bëri téel ma téel ma ko bu ko lekk de bu ko lekk de non Bamba non du ma ko lekk chauffeur bi non du ma ko lekk <laughs> téel ma foofu. ay eh, Macky eh, jël na mille jël na cent de. noonu lañ ko def xool chaque guddi ah gars yi eh, gars yi fajara ngi a jot de Macky ne ah fajara a jot de lu ci des ci bool bi nañ ko dencaat aca aca gars yi jël ko woo gars yi gars yi daw ñëw aca denc leen li gars yi ne ko caax denc <laughs> demee huit heures na gars yi dugg huit ñu commencé a policier oh fuc oh, fuc lu fi def lu fi def fuc fuc fuc yaa ndox bi la la la la wooy wooy wooy wooy yaay yooy huit heures sama ndey wooy wooy wuy yaay yooy gars yi heure bi la gaa yi di reer mais mi milliard la gars yi di noncé heure bi la gars yi di reer gars yi daw sénégalais yi daw fuj fuj gars yi faj li yi yëpp daw gars yi fees dal waa Pikine Guédiawaye kër yi fees tep tep tep tep tep promiscuité kenn amul fuy fanaan kër yi nga xam ne dañu di ñii dañuy fanaan guddi ñii fanaan bëccëg gars yi nekkandoo ci benn ñii tëdd ñii toog di leen xool nii am na kër yoo xam noonu la mel ñii dañ tëdd ñii toog di leen xool gars yi di xaar kenn ñu wul génn kenn waaye nañu ataaya bu ñuy yeewoo ñun ñu tëdd gars yi di ataaya ba fajar da gis koo xam day nalaw ba 6 heures mat sa kenn sa waay 6 heures zéro minute jóg de 6 heures zéro minute nga waroon jóg boobu ba léegi maa ngi fi 8 heures ba léegi maa ngi maa ngi tëju fii ah waaw ngi nii tëju gars yi ñoom makee ñu mi kenn mënu fa taxawaalu gars yi fa nekk di seddoo mille milliards di ko di ko reeree hmm, waaw waaw waaw fu ne ni moom 6 heures 6 heures zéro minute nga war a jóg man dama war a tëdd dama war a tëdd